taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëriñ Basiiru Mbàkkeem sëriñ Murtala mi ngi nii toog ci jataay bi ànd ko ak ay rakkam yépp ak njabootuk Serigne Touba gépp di nuyu Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Basir. di ko ñaanal sunu borom gën ko fee bàyyi ba yéeneem ci liggéey yëpp Serigne Touba bi mu àggale ko nim ko bëgge li tàmbalee ñu fàttaliku sëriñ Sidi Mokhtar mbake ak rakkam sëriñ Basiru Baara ak mbooleem njabootu sëriñ bi gi jitu gépp bis bi luñ fi jàng ñoom lañ ko féetale ku ne xam ab taxawaayam doon ku bëgg sëñ doon ko ràññeeku ci liggéey bi Sëñ bi wax ci moom sax danañ ci xaw a lott ndax kenn la woon ci ñun moo tax ñoo ngi sàkku ci mbokki taalibe yi lu fi waaye jàng rek nga yéene ko ci te yéene waale ci rakkam Sëñ Basiiru baar ak mbooleem sëti Sëñ Tuubaa yi ak taalibe Sëñ Tuubaa yi làqu yépp suñu boroom dolli seen gërëm fa nekk gannaaw loolu sëñ Muntaxa it ñu beral ko ak ñaan bu baax a baax ndax bis bii dañ koo ànd te yàgg koo ànd nee naa leen bis bi sëtt sëñ Tuubaa yi nekk ci biir dafa bari ñii dañoo feeñ am ñu feeñut bari na ci ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi nemmee ko fi bis bi toll di woote téléphone di ci soññee bu baax a baax Sëñ Muntaxa am na at gis ngeen ko ñew na fi lu jitu dool bama ma def bis bi ba sa bu bis bi jubee day taal auto ñew ba ci kër ga seet ma yëkëti piisum bassin ris jox ma ne ma sol ko ci bis ba su ko defatit bu bis bi jallé mu def ko kon dafa nekk ci biir liggéey bi moo tax dañ koy beral ak ñaanam gannaaw bu loolu jàllee ñuy sant sun kilifa di suñ jëruñ ci liggéey bi di suñ am satu Mbàkke moom Sëriñ bo di ko beral ak cant bu baax a baax ndax liggéey bi ab liggéeyam la ñu ànd ko mu jàpp ci ci biir ak ci bitti di ci soññee waxtu wu nekk di woote téléphone di laajte waxtu wu nekk mu def mu jox ko yitte joo xam ne néewaana ñu gis yitte jum ko jox waaye loolu noonu lañu ànd liggéey bi Sëñ Tuubaa bépp lépp lu ma nekk ñoo ko ànd lépp lum nekk maa nga ci ñoo ko ànd kon dañ koy ñaanal rek di sant mboolem taalibe yi fi teew kilifa yépp ndax sëñ basirum sëñ mortala ñëw na sëñ abdul muhayminu sëñ daawuda mu siñ mortala sëñ abo horayra sëñ cheikh abo moom sëñ mortala moom itam ñoom ñëpp teew nañ fi soxna yi waa kër sëñ abdul laxaat ñi ngi fi soxna njaxaatum sëñ abdul laxaat soxna maam jaara mu sëñ abdul laxaat njabootu sëñ abdulaahi borom dër bi soxna asu soxna maam xari soxna faati moom sëñ Abdoulahi ñoom ñëpp teew nañ soxna May Mbàkke soxna Ndey Mbàkke jaaxal soxna Umbi Touba moom sëñ Fàllu soxna Maam Say Mbàkke moom Cheikh Mouhamad Fadal ñoom ñëpp teew nañ ak buñ seeni doom ñoom seenu njaboot moom ñoom ñëpp teew nañ duñ buñ ko duggee ci lim sax duñ dem mënuñoo mënuñu ko lim ndax ñoom ñëpp dañ koo ànd di beral ab nuyoo tamit sëñ do Kara no ni mom itam di suñu wëllëre eh. andang ak ñun bis bi mom itam ak njabotam ñi ngi ni ñom ñepp la yebal ca bëccëg ba legi ñi ngi fi and ak ñun liggey bi mu ñor ko lol mom itam ay talibem ñepp a ngi fi ak njabotu bopam ñepp fi mom ci jëmi bopam sax bëggon naa teew ngant ko tey rek xëy ginnaaw bu nuyoo bi jàllee nag yenn sama mbokki taalibe yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax te di leen xamal ne kàddu yi du mën a gudd tey kàddu sant rekk lay doon sant leen rek ba ca kanamu sëñ tubaa waaw amuñ seenug fay sëñ tubaa rekk moo am seenug fay yéen ndax bis bi bisub sëriñ bi la dañ ko woote ngir jëmmi sëñ tubaa rek doonuñ ci dara ngeen ñëw wuy si ngir jëmmi sëñ tubaa bu ngeen ñëwee fekk fi sëriñ bi rek tàmbulee ci sëñ bi yem ci sëñ bi bis bi daray àddina du ci dugg ngeen ñëw pas-pas boobu ngeen fi indi pas boobu ngeen fiy fekk kon ñu gën a santaat sëñ tubaa bu baax a baax a baax rende bi may ñëw damaa jaar ca barabu sëriñ bi mané ko ma ngi dem ci bisu bi araf buñ fibo fi jang fi ba booba lepp man sama jëmmi bop tiyabu juma ci sun borom wara bindal jëlaat na lepp jox ko adiya dem ba wessu ko Sëñ Tuubaa gi daal part sama xel yedduma mané ak mbolem talibé yi fay nek yi won ci wara am man jël na responsabilité joxal na len ko adiya ndax dama xamne duñ ko bañ waaw sama bopp rek laa joxee loon nag waaye ba ma demee ba ci biti sama bopp yedd ma ma ne taalibe yi seen pas-pas xam naa ne ni ma joxee addiyee sëñ bi li ma fay war a amee ñoom it pas-pas boobu lan am naa leen ko joxeel kon waaw kay ma demaat ne ko luñ fa jàng rek tiyaaba ji bu ko suñ boroom nangoo ba noppi ba jox la ko addiyee yow tiyaaba joojee mu ñu ca bindal ñun ñëpp maasa nañ jébbalaat la ko addiyee kon bis bi kenn do ci dara kennal Sëriñ touba gi ni wax du wax kese dañ koy jëf ci bir bis bi kennal Sëriñ touba la Sëriñ touba suñ borom moko ñëk kennal mbinde fi bari lol fi makoy tambalé moy mooy bi da ma sa wax ku usu ko tasxiin nu ngeen koy firé ñu wax ko ba noppi mu ne dedet suñ borom lim jëkk sàkk mooy bahrul Anwar. bim noppee dafa fab lawhul mahfos sëpp ko ci bahrul Anwar ak géej la ñeenti toq rek moo ca toq ci lawhu bi mbooleem looy gis rek ci la ko sun borom sàkk ci ñeent yooyu waaye mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow xajoo ci ñeent yi taxaweel nee daal koy beral yëfi boppam ne ko nag yow aco sëggal ci bahrul Anwar kon mu sëgg naan ca ndox ma ba mu siggee mu mel ne ëpp soo boo dugal ci géej rek seppiwaat ko mu ne gees ne sëñ tuba sëggal nga naan mu sëgg dëtam géej gi ba mu jeex tàkk mu sëgg nga xam ñun ci biir ak yonente bi moo tax sëñ tuba gën ñëpp suñ borom nag ber ko ne nasaani baaxil xadim bi annani abdul xadim da koo seppi ci mbindeef yi tege ko nee mu ne nag xamal na mbindeef yépp ne nag man maay ahmadul man maay abdul xaddim kon bu leen sonn ñëpp danañ ko xami ginnaaw soon borom jublu na leen koo xamal rek danañ xami kan mooy sëñ tubaa sëñ tubaa du moroomam kenn amul ndendandoo ku ñuy tudd di tudd sëriñ bi ñu ngi lay indil fitna rek ndax bu fekkee ku faatu la dañu yokk dañ koy mbugal foofa rek dañ koy duma dongo sëñ Tuubaa amul morom de kenn la jërul nës nësal ku nanguwut fii da nga nangu fële kuñ teg ci bàmmeel da nga xam ne sëñ Tuubaa amul morom waaw karamanillahu bi ma lam yëkku ni wala yëkkunu li si waaya ni suñ borom teral na ko teraanga joo xam ne mësee su koo gis ci kenn ku dul moom te dee su ko gis ci keneen ci àddina ixtasanillahu bi ma lam yëkku ni wala yakunu lisiwaay si waaya biku ni suñ boroom jagleel na ma loo xam ne mosu koo jagleel kenn ci àddina te dootu ko jagleel keneen ci àddina ba àddina di tukki wala yahab fil xatti ma lam wala yakunu li si ni nanga ma may ci samay mbind muy samay xasida lu kenn mësta am ba àddina di tukki te kenn dootu ko am te loolu ñaan ko nangu la gu tege nee dafa rabbi yàlla ayna wa dabar li khairi durri wa bar si khabar suñ borom dafa jagnal iblis ak ay gayam lor jëm faneen furut ci serigne bi waye ku lew tok mom rek o mu baari si khabar ñu suul ko rek ku lew tok suñ tubaa ñu suul rek suñ tubaa ko wax legi yalla xam na ne man damay am nak xol sax duma bëgg wax ndax suma waxe xeyna man na waxe no xamne ku nekk ak nanga ko gisee ku ne ñu koy tudd di tudd sëriñ bi te boo waxee ñu ne murid dañuy farfarloo dañuy ne te ñoom li leen neex lépp ñu ngi koy wax waaye yoral sam xel nga xool lii Sëriñ Tuubaa am ci wàllu saaxir ñu jël xasida yi rek kaneen ku ko amoon danga nga ko téyeeg sa fukki loxo kon téye leen ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yi te topp njabootuk Sëriñ Tuubaa gii te nangoo liggéey tey joxe addiya tey fonk seeni waajur tey diglu ndigal tey bàyyi tere lii maa ngi koy tàmbalee ci saa bopp di ko wàcc ci mboolem ñépp Sëñ Tuubaa lii mu am kenn mayu ko ko suñu boroom dafa doon jaay mu jënd ko ba mu ko jëndee ba noppi nag ak njëg moom ñaar da ko bokk genn rekk lay doon te mooma irham jami'al wara la wax kon seigne touba ñepp la yene jamm ndax ñepp la ñaanal waye nak gi gis na ne de waxuma ci turu kenn sama turu bop la wax man ci sama pas passu bop ñi juk di wax ci mbirum serigne bi wax ju ñak teggen lu leen neex ñu diko wax ba jamono yëlee ci ginnaaw am na ci ñoo xamante ni woo nañ ma téléphone ne ma dañ leen woo tribunal yaakaar naa dañoo dàqaat lañ leen woowe woon ba ci weer wi lay war a doon te ku wax ci Serigne Touba wax ci wax ju safaanu gone saaga ko ñu joteek moom ca sa saaga la enregistré dem yóbbu ko ñu di leen ci topp di leen ci fitnaal waaye li ma leen di dénk mooy ah doyloo leen Serigne Touba rek. ta bàyyee ko seen bopp lu leen waaye jéemal suba ba ngoon ci boppam dong lay këpp mujj gu ñaaw dong la koy jural suñ tubaa amul morom suñ cheikh baara matale sànq bi mu ñëwee ci bëccëg dañuy waxtaan mu ne ma dama wax naa leen ne leen miir bi ñuy wërale fii bu noppee ñu bind ci isa sakar tu mabita mabida mané ko ca taala wa barakatuh mbokki maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëriñ Basiiru Mbàkkeem sëriñ Murtala mi ngi nii toog ci jataay bi ànd ko ak ay rakkam yépp ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp yu diis a diis a diis mu muñ ko ngir lan lu mu bëgg ci boroomam di ko sàkku ngir ñan ñun taalibe yi kon lu jàpp Sëñ Tuubaa doyut fi ne ñu bari dañoo jàpp ne ndakaaru lañ ko tàmbalee fitnaal ndar lañ ko tàmbalee fitnaal di ko teg ay mettital néeg bii ku ne xam na ni deme demee woon bañ ko fay dugal dañ koy puus muy xotti yaram wi di xotti yaram wi ñu koy puus néeg bi amul sa euh, xet goo xam ne kenn mënu koo dékku mu dugg rek ngir ndigalul boroomam la bi mu ne tegg ab tànkam ràbb gi bënn baaraam bi waaw mu ne tekk sunu borom ne ko ba ma ko xàmmee ak ñaar raaka ya nga julli woon ca ndar de mu ànd ak jom ga ak ak ak ak ak euh, mat gi ne tekk julli julli gu yàgg a yàgg Sëñ Tuubaa am da koo jënd de ñu xuus booba la lépp mat néeg ba ku ne fekk na ko fi ba koo génn mu ne leen dem leen toog ndigalul saa borom la soxna jaar a fekk ko ci biir néeg ba mu ne leen ndigalul sama borom la ba bët set jot baax ñu daal di jàll ci géej gi géej gi ñëw juróom ñaare wer juroom ñaari at ak ay wer man na sëkk tafal seen nga juroom ñaari at yi déglu leen ma rek damay wax danaa ko wax gis nga diir boobu bari na ci loo xam ne deesu la ko nettali sax wallahi duma ko wax jë jë jërun ngeen duma duma ko wax damay junj rek waaw dégg nga xam ne tubaab bi ñuy door a dem sëñ bi tumuraanke gone def na ko am na bis boo xam day taw mu wéet lool mu jekki-jekki waaw maa ngi jégalu tuuti baax na waaw bi mu demee ba taw yu bare mu wéet loolu amul néeg bu mu dugg sax moo am benn pantre bu mu dugg woo xam ne aw waañ la ba faa seelu ñu génne ko keroog mu dikk taxaw ci taatu garab mbind yi mu yoroon mu bañ mu tooy mu teg ko ci dëndam tafu ci taatu garab gi fala fala taxaw ba bët set loolu ngir lan ñun taalibe Sëñ Tuubaa rek dañu fàggul am na ci bis boo xam ne moo ne ci aw waañ la dugg ñaan boroom ne ko ndax mën naa fee taxaw ñu may ko mu taxaw fa ngir bañ ay téereem tooy rek waaw loolu lépp ngir lan ngir ñun moo taxoon kon ñun delloo wu njukkal Sëñ Tuubaa luñ def lu dul delloo njukkal siñ tubaa war nañ Sëñ Tuubaa bu ñu waxantee dëgg nañ gën a doon dëgg dëgg taalibe ba fii may wax ak yow ba barab bañ yóbbu woon sëñ bi kuñ fa yóbbu woon nga des fa ay xeeti yoo yoo xam ne tooke la am comme dal ci sa yaram bu la màttee dem na ba sëñ bi ñibbi si ba nekk njaareem fi ko yooyu doon màtt bën bën yi da koy gis ndax yooyu de am lu ñu bàyyi ci sa yaram mu def tooke ci yaramam te daa bokk ci jaayante yi suñu boroom da ko wax doo ko faxas doo wokkutu mu muñ ko ngir lan yooyu dañ ko daan sàmm ba doo gis yaram wi ay xeeti dig yoo xam ne kuñ jam moo raw jaan màtt la ñu di ko daan bàyyi muy jàll te du ñemee sëqat nag ndax daa am lu muy wut ci boroomam ndax laata muy dugg rek daa am ay ay ay ay sart dem na ba diggante boo xam ne néeg bi ñu ko dugal ñoom tubaab yi ñoo fa nekk seen lal yooyu di tegaloo ñu jox ko ci benn lal bokk ko ak moom bëgg lu ko naqare lool suñ jëlee seeni cigarette di ko tux di ko ko xër ngir bëgg mu am naqar te du leen sañ a tere li ñuy def buñ duggee foofu sax dañ koy tëpp ndax yeneen ci des des ko tudd àgg nañ ci sax def ay tool yi di korose law ngir bëgg lu ko naqari waaye booba dañoo xamul ne daa fekk muy lu ko boromam digal kon yéen taalibe yii bëgg ngeen Sëñ Tuubaa lool waaye luñ ko bëgg doyut ndax kenn ku ci nekk li la Sëñ Tuubaa defal sa ndey mën a lu la ko sa baay mën a lu la ko bu la ko sa ndey mën a loon wala sa baay mën a ko Sëñ du la gis mën lu leen ko Sëñ Tuubaa doo nga leen ko mënal te ñun Sëñ Tuubaa dañ koo gëm jébbal ko suñ bopp ci lépp amuñ lenn lu ñu xool buñ faatoon mu yóbbu ñu sawara sax bëgg nan ndax bu boobaa dañu xam ne moo fa yóbbu de waaye moo tax nañ sax ci lim ñu digal sax ci lim lépp lu ñu tere ñu wattandiku ko te jàpp xasida yi sëñ Tuubaa yi tey wattandiku tere yi moom laay dénk saa bopp di ko dénk ñépp na ngeen ma jéggal kàddu yi li ma bëgg a wax mënuma ko wax kàddu yi mu gudd mu gàtt kàddu sant leen rek laa jubloo wax waaw dama leen a jubloo sant rek mënuma leen a sant sax sant gi sax jëru ko ndax seigne touba rek ngeen di wuddi te moom ngeen fi am bis bi war naa ko ci sëñ tubaa ku fi taxaw seigne touba dañ la jéggal suñ borom dañ la jéggal say bakkar dama ko jaayante loolu moom dama ko ko ñaan waaw waaw njéggalu suñ borom dong la ni wut waaw ci ak cant la gis nga fa wax tek dañoo yendoo jàng alxuraan ji di yendoo jàng xasida yi benn xasida buñ ko jàngee képp fépp jataay booba defar na àddina defar alaaxira jataay boobee ku fa toog ñu jéggal la say bàkkaar nañ ko wax mu leer kon nañ delloo njukkal sëñ Tuubaa ñi ngi war sëñ Tuubaa de te bis buñ demee yowmal xiyaam wallaahi asim ba jàkkaarloog siñ bi mën na noo am kersa de ndax sëñ bi lim ñu dig moom dana ko def nañ yam fim ñu yam loo nañ yam fi ñu yam loo te sax ci lim ñu digal loolu rek mooy lépp ñun nag fii ak ñi ngi dund liggéeyal Sëñ Tuubaa rek lañ fas yéene def jaayante ko xooluñ ci kenn kuñ ci àndal donte ñun dong ñooy dem sax ci loolu danañ ci dem ba jeex tàkk ñun xoolun wéet xoolun wéetaliku Sëñ Tuubaa rek laay xool waaye dañ koy ànd ak rek waaw dañ koy ànd ak yéen dañ koy ànd ak ndax dama jàpp ne. bisu xasida bi yéene la rek ak lu Sëriñ Tuubaa bëgg bëgguk sëriñ bi la de man doonuma ci dara keneen du ci dara du ma nangu ko ci rax lu doonul sëriñ bi Sëriñ Tuubaa kese lañ fiy dund at mu nii rek lay deme Sëriñ Tuubaa rek tàmbalee sëriñ bi yem ci sëriñ bi waaw suñu yoon nekkul ci leneen ni ngeen ma jégal kàddu yi bu ma xuusee damay wax lu ëpp waaw jégal leen ma fii maa ngi jàkkaarloog yéen damay bëgg rek. waaw ndax jëmm yu mu rëtee rek jëmm yu mu rëtee rek laay gis su ma génnee bala maa àgg kër ga namaat leen waaw maa ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax képp koo xam ne Sëñ Tuubaa rek ngay dund man jàpp naa la bu baax a baax te ngi lay ñaanal lépp lu seen borom di defal rek na la ca sedd waaye kuy tudd sëñ bi du tudd keneen nag jotewu ma ak yow dara man te bu ma xamee saw tour xam gi ma xam saw tour laay ñaan man mu deñ sama xel man waaw jotewu ak yow dara man sëñ tubaa rek sëñ tubaa am dal bax na lu mu amut man sama yoon nekkul ci lenen de non rek la liggéey bii ñuy ànd bu len ko xeb de wallahi asim ku ci faatu bañ yor la ci bammel da nga xamne tew teew ci bisub xasida ba bañant so la neen nga ci waye ba boba ci len koy xame lu ñu ci nekkal bu ñu neexoon ñu tok suñu neeg di jang yi waaw nii la ko sëñ Tuubaa bëggee waaw nii rek la gannaaw bi loolu jàllee ma am lenn lu may yëg la rek dafa am fédération boo xam ne taxawal naa ko tuddee ko soppee xasida yi ñëpp a ngi ci biir sëñ Aliou Ndiaye maraaxib ca Tëngéej moo nekk ci bopp bi danañ ci gën amu yaatal ci ko ci jokkoo ak moom ginnaaw bu bis bi jàllee loolu lañ ne nañ ko leeral rek ñëpp yóbbaale ko ñu ngi tuubal sëriñ bi bu fekkee am na kàddu kon wax ku ñu te wax ñu ngi koy tuub bu baax a baax di sant njabootu sëñ Tuubaa gépp sëñ Cheikh Abi tamit ñu ngi koy beral ak cantuk boppam ma leeral leen ne diiru bañ sosee bis bi ba léegi bis bu ne bu desee ay fan dana jóge Touba ñëw ndakaaru ngànta koy téye ba tax du mën a ñëw ci baas bi waaye day nekk ndakaaru ay fan bu bis bi jàllee ba ci suba sa mu ñibbiwaat Touba ngir xamne bis bi dara genn jo señ señ bi dara genn jëf liggéeyu këru xaside gi tamet lama ma leen waxoon laa leen waxaat rek bu ñu neexoon ñu wuti ay financement xam nañ yoon wi am nañ connaissance bi xam nañ bunt yi jaar waaye maa lànk defuma ko juróom-juróom yi ngeen di dajale ak fukk-fukk yi laa soxla mooy defar kër gi juróom juróom yi ak fukk yi bu leen ko xeb lu ñu am def ca rek lu joxe ñu def ca ba ba muy àgg noonu rek la saa bu sëñ bu ne tey lay àgg rek moo àgg tey waaw maa ngi ciy soññi ñëpp nag te tàmbalee ko ci saa bopp lu ci waaye man nga jàpp ko te ànd ko waa ahlu sintidi seenub liggéey la du sama alal ku fi nekkal sëñ Tuubaa yaa ko moom danaa leeral tuuti tey ay at ci ginnaaw bëgguma cee woon a wax sax ndax day nuru dara sëriñ Saalihu Mbàkke xiirtaloon ci ñuy gëstu ci sëriñ bi ci jeexitu sëriñ bi bari na barab yu ma dem yoo xam ne moo ma fa yabal bañ jot cee dajale lu baree baree bare loola ma xool xalaat ne lii man du sama alal alali Sëriñ Tuubaa boo ko dencee ëllëg fan lay mujj ma xalaat yi ab diir ma ne bagages yi àll Sëñ Tuubaa laa ko def foofa rek laa ci yem ginnaaw bi ñu demee ba këru xasida gi dikkal ñu nag ñu xalaat ne foofaay barabam ñu def ko fa muy musée ñun ñëpp ñu bokk ci yem ndax sëriñ bi dama koo dénk rek waaye moom ma ko comme niñ ko waxee woon rek day am barabu jànkaay alxuraan am bu ñu tàggatee ci xasida yi barab buñ ko fay di fa bindé di fa top, di fa mol di fa jàngale sax njàngoom magni lol moy barab ba no pé sama yonéku ci seen alala alala seigne touba la yéna ma ci gëna a yey jaageen jëf na ngeen ma jéggal kàddu buñ bu ñu fi toogoon ba ma ngi beral loxo waa presse bii nag ngi leen nuyu bu baaxa baax gis nañ liggéey bi and ak ngeen ko and ak ñun bàyyi seen yitte yépp bu ñu tuddee Lamp Fall mel ne tudd nañ Touba TV ak yi ci des RTS ak yëpp ak mboolem tele yi ci des ñëpp tudd nañ leen nuyoo boobu dañ koy jël teg ko ci waxal waa Lamp Fall ñoom bi ñu jàppee bis bi dañu xam ne bisub Sëñ Touba la xaarunu de dañ na lépp ci sëñ bi rek la daal koy tàmbale kon yóbbaale na ñëpp.